أيدك الله ونصرك وأياك mbooloo Touba ca kanam ñoo teew ci sa kanam di jottali liggéey bi nga xam ne Serigne Touba daf ko naaloon bàyyi ko nga taxaw ci sottal ko nu ànd ak sunu jëwriñ muy Serigne Habibullah ibnu Cheikh Mamadou Fadil lu ñu lay fii ngay wax si anam ak sama jëwriñ ci baax yi di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul liggéey bi nag kuréelu Touba kanam am na yéene def lépp ak yow tey te moo di bu plan yi sotte ñu jël ci bâtiment boo xam ne dañ koy liggéey te ànd ak liggéey bi ba baa muy mat di ñaan nag nga ñaanal ñaanaloon kilifa gii ak mbooloon ba lépp lu ñuy liggéey ci yoon wi ci lislaam nu man koo taxawee ba mu sëkk ba ku bàyyee ci def ci dara na doon yéeni koo yiw tam bañ a doon lot wala a doon tële ngir bañ guddal loolu moo doonoon kàddu di ñaan ci barke Serigne Touba bi nga wér ngërëmul Serigne Touba li ngay ñaan yàlla nga ci jot nee na woote bii ko woote nag murit yëpp wuy si nañ waaye nee na li nga leen ne kuréel bii am naa ci yàq sëñ Touba nee na loolu rek dañ bëgg a dalal seen xel wax moo tax ñu dajale téeméeri million te suñu commune parce que ku yéene jox te nag mais bu dee ak mu lépp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 pëstéef bi ak jublu gi ak yéene